prochain artiste. Ouais. Donc le prochain artiste qui va arriver ici. Ah ah ah, ouais. Elle confirme. bu nga ñaanee mën nga ëppale. baax na merci beaucoup. léegi ma sama montre bi ba pare. demal. montre bu rëy nga indil ma. ah non monsieur Tomba laa topp si. ok. donc ok bonjour bonsoir peu importe. de la position du soleil. booy soppee. nuyu naa la bàyyi ay kuul defarul nu nga toogee jubantugul bu bari soppee defar toogal normal. tey tàccu leen bu baax a baax baax baax. konte na naa leen di leen ñaanal jàmm di leen wax ne naar ak tubaab duñ benn noofu rek lan duróo gën a jar mbaxana te ne xam du jaaru lu ga baat jàng gamu loxo du ko dindi te ku bëgg a xarit toog golo da jàng yëg ba nun ko fii képp ku fi toog gis ku ñëw dee énervement ni jógalu ñaawaay bi sama sago ba ma sañoon kenn du ma dàq si yéen soxna si duñ la fay pour nga reetaan bañal parce que nam da laa sa parce que nam rafet na ok aujourd'hui eh sa reetaan ñaaw na yow de <laughs> waaw lii reetaan la harmoniser sa reetaan je vais vous raconter une histoire de mon école oui on était 44 élèves dans la classe premier man maa jël 43e sama am jom moo tax Ibou Touré moo jël 44eem ñu defaat deuxième compo ba jël la même chose 43eem Ibou moo jëlaat 44eem. donc kat jàng yi xam nañ lu may wax dañuy mut prétexte bu ñu paree pour daw jàng faaw ñu am lu wax monsieur bi suñu kër benn téléphone la amal te téléphone fixe la te ku nekk xam ne téléphone mu dara leen mais suñu kër am na benn ginaar olof bu fa ne fajar gi ginaar moo may dimbali moo naan. mooy fajar gi jot na ci laa jóg préparé dem jàngi un jour mën naa ko tey maa bàyyi ba un ba doog a jàngi te cours bi huit heures la damay egg si su ma see génnee cravage bi ne ma seeraan venez ici ma ñëw taxaw mu ne ma foo nekkoon ba heure bii question bi moom dimbali waxuma woon laaj man ku ma see ah, man bu la neexee ngeen nil ma kaamil bi waat fii nii wax la lu wax dëgg la suñu kër benn téléphone la te téléphone fixe la yow monsieur xam nga téléphone fixe du rek naa kooku rek koo mu ne waaw léegi après lan la mu ne ko démb danoo reer ba pare am sama ñaari xaritu papa ñëw laa yee mu ne maa ah dër mu ne ma après toogal que ñaari compo yi jaay yëpp man 43e laa jël yaa ni moo na jël 44e yaay ñëw suñu kër ma damay bàyyi dama fekkee troisième contrôle ma ne ko bul bàyyi yaay ne day bàyyi ma bàyyi waaw waaw mais am na sama beneen copain Ibrahima Sall moo doon jël quarante deuxième xëy ñëwoon suñu kër naam Gérard daay da ngaa gëj a jàng si ma ne ko bàyyi naa mu ne bul ma ko ça dépasse kii bu de bu jàng see ma jàng si bu bàyyi bàyyi naa ah ah ah ma ne ko Ibrahima da ngay bañ laay bañ eh un daa ñëw daanee tous les élèves qui font ici lycée un trait passe par vite pour yow mu déggul français suñu mose nee na élèves yëpp kenn ku nekk na dessin benn trait bu gaaw comme sama inspiration c'est automatique yàqantiwuma lu may def damaa teg sama bic waaw waaw loolu baax na de loolu wax merci ma teg sama bic teg sama kay di xool élèves yi tricher bu ñu koy man maa tax gis naa benn élève boo xam ne gisee na train bi train mi ngi taxaw mais créativité bu mu si war a def bu boo xoolee train gis ni train mi ngi daw baax booy bi amul loolu ma loolu moom inspiré ma arrière jël sama bic noir rëdd ñaari rëdd teg bic bi jël craie bu weex ba ma yoroon dëpp ko ba mokk sot ko kay bi dëj kay man pare naa dégg waaye 45 minutes élèves yi ngi di seen suñu laaj commencé vérifier Ibou oh Fosé Guy Ndiaye Causé battu Causé mais raté fini ma ne wii mu ne ouvre la cahier le cahier ma ibbi cahier bi ëff kere bi poussin bi naaw poussin la qu'est-ce que c'est ça lii lan la man ko raay ana train man ko romb la man ko train bi daaw ma

yaa ngi may tifle man maa ko xam foo ma fuy mu ok je dis quelle phrase commencée par F terminée par A man monsieur loolu fakadaga la fakadaga qu'est-ce que ça veut dire que fakadaga man ko pain dormi hier nga laajte mbir fa naa ne fakadaga lañ koy wax te ñu bërgël ma bërgël mooy koo xam ne loo defati baax na kenn considéré tu la ngay dara man bërgël ma sama parce que je révolutionnaire mën nañu ci cinq jours bi ñu livre cinq cent pages waaw parce que amoo leen xam-xam moo tax ngeen weddi ma ma ñëw jox poussé bi livre bi nekk livre bi livre cinq cent pages la mu ne il s'appelle comment ma ne ko le roi et son cheval bi ak fusam suñu ma see dem ba yi ma tëj ko ne xel moo ko liggéey woon élèves yi ak professeurs yi moo xam leen lu ma liggéey lan la su may jàngi si kos laay jàngi see parfois lu ma xëy neex dama koy jël ndax loolu laa bëgg lu baax xale jigéen xool ne eh Général dëgg de boo selee ko si ak Macky Sall benn ngeen. <laughs> eh bi dem palais direct di xool ba xam dëgg la eh xa xeeb naa gendarmerie de wala beneen rouge tamit xeeb naa li si garde rouge balaa jubali damaa ñëw ba si garde rouge bi taxaw ne ko grand kan laa leen di daa dund bu xool ma sa kaw ba suuf nee ma ku rekk ngeen doon dugal xam dañ ma doon nax et jour ci jot ñu ne où est les généraux man leen je suis là ñëpp a ngi taxaw fees dellu na comme nii ñu ne ma général fàttali nu livre bi mu tudd loo bind si livre bi man leen livre bi maa ko tuddee le roi inconcevable buur bi ak fasam dem ok ñaata page la man ko 500 pages loo bind si livre bi ma leen première page bi dama si bind le roi le roi moom suuf son savoir laa si bind ñu ne ma lii loolu man xanaa fii daa ñu ne ma waaw man ne damay bind si première page bi buur bi yëg la si façon ne waaw man ne si dernière page bi ma bind si le roi arrivé dans la forêt buur bi dugg na si àll bi ñu ne waaw 498 pages yi ana loo si bind mooy leen lu fas bi di dawe kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga kër ga merci beaucoup neex naa leen di ok damay waneelu waneelu baay baay waneelu ba maanaam tànn yow sew waneelu saay saay waneelu sa baay baay waneelu saay saay waneelu baay baay waneelu sew yaay waneelu sew yaay waaw ba lépp ba topp di waaw xanaa du nit il n'y a pas de problème dafa solution ok léegi boobu rek góor bi xamal lu gën a jël daal aw ah, ah, ma daal jël daal nga rek da nga bokk ak voici ma jàpp bien fait ah ok pour que la suñu production du bien encore ok parce que xam nga kii day reetaan di siin de yow di ko bu bon nga yor yow li lii moo gën a bon li ko di taxaw di seen nga koy reetaan 아니 나무를 꺾어내지 뭐못 걸은 거야